na na gaa yi ñëw jot seen bité. love. laa waat ni boo fi jógee. mi nga xam ni. mooy buntu mooy buntu Baye Fall yëpp. nee mooy buntu Baye Fall yëpp. mi ngi leen ci turam. nee mu ngi nuyu nuyu ci aw turam. ndax ndawam mu ngi nii toog di doomam. ndax ndawam di doomam mu ngi nii toog. dañoo wax ni ndaw. dañoo wax ne ndaw. jëmmi ko ko yónni lay indi. jëmmi ko ko yónni rek lay yor darajaam. nee kon sëñ daam ñoo ngi lay siyaare bu baax. di sakku it. nga siyaareel sëñ bi sëñ ba. nga siyaareel sëñ bi sëñ ba. sëñ ba sëñ ba. waaw mu ngi nuyu itam. nee mu ngi nuyu itam. di jottali teewaayu sëñ Saliou Fall. teewaayu sëñ Saliou Fall Fatou Sow. moom sëñ Moudou Moustapha Fall. moom sëñ Moudou Moustapha Fall. moom maam Cheikh Ibrahima nee ñëw na fii ci jotaay bi. di jottali tamit. tewayu seigne Mor Talla Fall. tewayu seigne Mor Talla Fall. khalifa seigne Ablaye Fall dar khalifa seigne Ablaye Fall dar moom ñëw na fii ci bis bi. moom itamit ñëw na ci bis bi. di jot li tamit. di jot li tamit. tewayu Cheikh Mourtala mak Fall. tewayu Cheikh Mourtala Fall. ñëw na mu Cheikh Abdou sakor ñëw na fii. ñëw na ci turu magam. ci turu magam. seigne fallu Fall. seigne fallu Fall. mom seigne Abdou sakor mom maam Cheikh Fall. di nuyu itam. di nuyu itam sunu mbokk yi jóge daru khafur sunu mbokk yi nga xamni ño joge ko daru khafur muy serigne Omar Bayo mom Baye Ndam Fall rakam serigne abdullah andak rakam serigne abdullah ak serigne gonda ak serigne gonda ñu kep Ngunda ñoom ñëpp ñëw nañ fi nee ñoom ñëpp teew nañ fi di jot li itam di jot li tamit nuyo nuyo ako kent ako kent ci sëñ Ngunda Fall ci serigne gonda Fall moom sëñ Basiru Fall moom sëñ Basiru Fall mom seigne Mbacke Fall mom mam Cheikh Fall di jottali tamit nuyo nuyo ci sëñ Moudou Diagne ci seigne modou Diagne mom seigne Sang Diagne mom seigne Sang Diagne mom seigne Souley Diagne mom seigne Souley Diagne ne momit it fi lay yendu di jottali nuyo ci wa keur suñu baay ci wa keur suñu baay waa mooy sëñ Abdou Khadir Ndoye mi ak sëñ Moudou Ndoye sëñ Abdou Khadir Ndoye ak sëñ Moudou Ndoye moo fi ñëw. nee ñoom ñëw nañ fi. ci njabootu. ci njabootu. Baye Daouda Ndoye. Baye Daouda Ndoye. moom sëñ Moussa Ndoye. moom sëñ Moussa Ndoye. moom sëñ Bassirou. moom sëñ Bassirou. Ah, kon yaakaar naa ne. nee kon yaakaar na ni. ñooñu teew nañu fi. ñooñu ñëpp teew nañu fi. njaboot mbir nag boo ko wootee. mbir nag bu fekkee da nga koo. mais war ne la nga doon def. war ngaa xam ne la nga doon woote. sa borom nangu na ko. sa sa Boora Baara Ndiaye. mu Touba Fall. ñëw na fi ànd ak rakam. muy sëñ Baara Penda. Ah, ñoom it. nañu fi. teewal teewal fi seen kër. teewal teewal fi seen kër. kër gi seen kër la. ndax kër gi seen kër la. seen ndax seen jur. jur. yaayam jur. yaayam jur. ak ak ñoo bokk benn kon ñoom bu fi ñëwee. kon ñoom bu fi ñëwee. seen kër ñëw. kon ñoom ñoo war a dalal gan ñi. kon kat ñoom ñoo war a dalal gan ñi. di sant ñoom. kenn ñoom it ñu ngi leen di sant. mbooloo moomu daal ci njabootu Serigne Touba ak Cheikh Rafal. mbooloo moomu nag ci njabootu Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal. ñëw nañu fi. ndax nit bu fekkente ni bii dañ ni kenn dox diggam ak Serigne Touba. ndax kat nit bu nu nee kenn moo dox diggam ak Xaadimu Rasuul. wala kenn dox diggam ak Cheikh Ibrahima. wala kenn dox diggam ak maam Cheikh Rafal. fu mu teew fu mu teew. war nañoo xam ni Serigne Touba teew na fa maam Cheikh doomi serigne mourou moustapha fall ñew na fi doomi serigne ibrahima fall ndar ñew fi doomi serigne abdou sakor ñew fi serigne euh, murtala fall mi fi ñew ndax serigne murtala fall mi fi ñew kérok bi way jurum di nelaw kérok bi way jurum di nelaw ci dëkk bi la ko fekk ci dëkk bi la ko fekk magal gi la ñewon magal gi ci la ñewon ñu tok fi ñu tok fi mo ak mom serigne tala mi mo mom ak serigne tala mi mo am fi ñaari fan mo am fi ñaari fan way juróom nelaw way juróom nelaw keroog bis booba la fi gonte keroog bis booba la fi loolu moom loolu ak yëg du ko mënta weesu ak yëg mënu koo weesu ak wane ni sama alal laa ñëw ak wane ni tamit sama alal laa ñëw ah, kon ñu ngi leen di sant bu baax nee kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm te di leen gërëm ah, sëñ bi nag nee na sëñ bi nag nee na mu ngi sant mboolem rakam yi mu bokkal sëñ Ibrahima Yacine góor ak jigéen. góor ak jigéen. mag ak ndaw. tàmbalee ko ci sëñ Jiiri Fall mii. tàmbalee ko ci sëñ Jiiri Fall mii. sëñ Ablaye Fall mee. sëñ Ablaye Fall mee. ak sëñ Cheikh mee. ak sëñ Cheikh mee. ak sëñ Aliou. ak sëñ pare. ba ci sëñ Aliou mi. ba ci sëñ nga xam ne mooy caat mi. ak sëñ Sawru Fall. ak sëñ Mourou Fall. nga xam ne ay doomi sëñ Aliou lañ. mu ngi sant ñëpp te di leen gërëm di leen sant di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal lépp luñ man ren lépp luñ man ren yàlla nañ ko man déwén ndax kër gi kër gi ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk bu yàqoo bu yàqoo ñëpp la yàqul ñëpp la yàqul bu defaroo bu defaroo ñëpp la defarul ñëpp la defarul te du yàqu sax te du yàqu kat waxin la rek waxin la rek waaye day defaru day defaru de defar defar lañ fi fekkoon lañ fi fekkoon danoo fekkan sunuy baay ñu ànd di defar bañ bàyyi bool bi suñu mag yi fi nekkoon di sëñ Muudu ak sëñ Aliyu di defar ba bàyyi koo fi kon sëñ bi bu fi ñëwee defar rek la fi def yàlla yàgg barke sëñ Touba barke maam Cheikh Fall barke Cheikh Ablaye Fall ñu ngi nuyu itam nee ñu ngi nuyu itamit sunu sëriñ si ci biir kër gi sunu sëriñ ci biir kër gi muy soxna Kana Fall muy soxna Kana Fall di taw Cheikh ablay Fall ak rakam ak rakam ne ñu ngi leen di nuyu bu baax ta di leen siaré ta di leen xamal ni ñom rek lañuy liggéey ñoom kat rek lañuy liggéeyal kon nañ ñu doli ñaan ndax ñom de dañ ci ay jigéen waye bu ñekkam ay goor ñoy toog fi tay kon ñu ngi leen di siaré bu baax di nuyu itamit ñi nga xay suñuy doomi bàjjan lañ. ñi nga xam ne ay doomi bàjjan lañ ci ñoom. ñu bokk ak ñoom sëñ Ibrahima. ca Kacamak ca Kacamak. muy Mamadou Fall. muy Mamadou Fall. ñu naan ko Miidu Fall. ñu naan ko Miidu Fall. mooy mooy mooy Miidu Diop. Miidu Diop. mooy seen mag. mooy seen mag. di doomi soxna Nogay Fall. di doomi soxna Nogay Fall. di ca teg Seydina Alioune. di ca teg Seydina Alioune. moom soxna Jee Fall. moom soxna Jee Fall. ak i rakam ak i rakam. ak Moodu Ngom. ak Moodu Ngom. Xuma Ngom Xuma. doomi bàjjan soxna Fall. di ba doomi bàjjan soxna Fall. ñee ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax. te di leen sant. di leen xamal ni di leen xamal ni. liggéey bii noo ko bokk. ndax noo bokk sëñ Ibra Yaasin. dañoo jóge ci ndey. nu jóge ci bàyyi rek. nee noo daje ci maam Ibra Yaasin. kon nanu ànd bu baax. kon nanu ànd bu baax. te xam ne sunu alal rek la nu yor. nee ñu ngi leen di sant. te di leen gërëm. monsieur le maire. ñëwoon na fi nee ñëw na fi. ñëwaay bu rafet ñëwaay bu rafet. seen taxawaay. ci kër gi xam nañu ko xam ko. ndax. maanaam bi màggal gi di jub. màggal gi jub si. ñëw na fii ñëw fi ay éléments. yabal fi ay éléments. ñu seet dëkk bi. lamp bu fi nekk. bu fi nekk. te takkul ñu fexe tàkk. loola nag ak cant la. liy cant gi. nit ñi mu nga boole ko ca. sant ak sant. nee ak sant ma ndax réew mi yaatu na lool. te li nga xamante ni bii mooy li fi am. te li nga xamante ni bii mooy li fi am. muy sëriñ bi muy sëriñ bi. fu mu wootee. fu mu wootee. ñoom ñu gis leen. nee ñoom ñu gis leen. te nun nag. te nun nag. ay taalibe rek la ay taalibe rek la ñuy doon. du nu ay politique. du nu ay politicien. ay taalibe yu lañu. kër gii di dëkk bii. dëkkum ndigal la maam Cheikh Fall moo fi yebaloon sëñ Ibrahima nee moo fi yebaloon maam Ibrahima Yacine de ni ko loolu fi fekkul ni ko daa koo amul waaye lu ma yor da ngeen waaye lu ma da ngeen ko jàmm loolee am na tey nee loolee toog ci buntu kër gii daa nañ toog ci buntu kër ni fii de mbooloo mu bari danañ fi daje ndox dana fi ball booba yaakaar na ni ko amul woon doo ko mën a gëm waaye du fa fanaan loola lépp ñëw na loola lépp ñëw na tey yaakaar na ne lay am ndar am na fii kon noo ngi sant bu baax a baax nee nag di dolli sunu taalibe te di ko yeesal ci sëñ bi ca sëñ bi ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay sant nu itam bi sëriñ bi nee na ñoo ngi lay sant nee nu ñu say dongo ndax liñ lay sante ndax da nga fee fekkoon da nga fee fekkoon ak ànd ak ànd akub taalibe akub taalibe ni mi ngi yokk te gis nan ni mu ngi yokku nit nag bu yokkoo nit nag bu yokkoo daa war a sant kon Fall noo ngi lay sant yàlla na yëf yi yàgg yàlla na yëf yi yàgg te barkeel te barkeel te ñu yàgg ko ànd ak yow te ñu yàgg ko ànd ak yow ak say doom noog say doom ak say rak ak say rak ak taalibe ak sunu soxna yi ak sunu doom ak na ko yàlla def yàlla na jëf sant na bu baax a baax nee loolu kat mooy ndigal de lu ci réer nag nee mu ngi jégalu lu ci dëng rek fàlloo ne lu ci dëng rek fàlloo waaye du ci sëñ bi de jërë ngeen jëf fan dara dëng yow yi gis bi loo gis dëkk bi xalam dafa a dal ndax ki ngay jotaay ki gis jotaay bii xam ne dëgg-dëgg jotaay bi jotaay yi maam Cheikh la Lamp Fall képp ku fi ñëw tey yëg nga fi yàlla képp ku fi ñëw tey yëg nga fi sëriñ waaye képp ku fi ñëw tey yëg nga fi maam Cheikh Ibrahima Fall làmb fal bamin bu na ab sëriñ dafay defare ab sëriñ dafay yore ab sëriñ dafay taxawu te ku ñëw fii gis njaboot gi xam ne ut nga leen taxaw nga leen yar nga leen tarbiye ngeen tarbiye nga leen tasxiye nga leen kon nag soxna si daal nee na mi ngi lay sant mi ngi day gërëm nee na ñun nga xam ne ñoo nekk ak moom man de bëriwul li ma ko gis mu dem ci jotaay yu mel nii bëriwul waaye nag danaa koy gis màggal Tuuba màggal Kazu Rajab yeneen yu nu mel waaye tey ni mu bàyyee léppam tëj ay buntam woo ay taalibeem yëpp ne leen tey du ma liggéey dafa am fu ma jëm fu ma yitteel lool képp ku ko woo téléphone mooy la dama tey liggéeyuma waaye ku ko woo téléphone mooy la tey dama jàpp arrêté leen téléphone yi ba ma jógee fi loolu tey laa gis mu def lu kon nag dafa fekk ne lim ba ba mu la gisee yëg bi nga ko jox ak dayo bi nga ko jox ak wàccuwaayam bi nga ko jox boo olof Ndiaye nee na jiw na nga def xamoo ko na nga def a tax waaye soxna si ni nga ko jàppee xam na ko ni nga ko fonkee xam na ko li moo. li muy gis si dëkk bi doo gis dëkk bi xelam dafa gën a dal ndax ki ngay jotaay ki gis jotaay bii xam ne dëgg-dëgg jotaay bi jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall la. Lamp Fall Babil Mouridina képp ku fi ñëw tey yëg nga fi yàlla képp ku fi ñëw tey yëg nga fi sëriñ bi waaye képp ku fi ñëw tey yëg nga fi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babil ab sëriñ dafay defare ab sëriñ dafay yore ab sëriñ dafay taxawu te ku ñëw fii gis njaboot gi xam ni ut nga leen taxaw nga leen yar nga leen tarbiye ngeen tarbiye nga leen tas nga leen kon nag soxna si daal nee na mi ngi sant mi ngi lay gërëm nee na insha allahu rabbuna si borom bi nga xam ne moom mooy def ci dindi parce que yéene ànd ak yow lépp la nekk dana sa nekk ànd ko ak yow insha allahu rabbuna sol la mbubb moo xam ne daal parce que yéene lépp loo nekk dana fa nekk ànd ko ak yow soxna si nag ñun ñi nga xam ne xam nañ ko di ko di ko di ko demal fu ne di ko waxal fu ne ñu ngi lay seereel ne nit baax la ñu ngi lay seeral de lu dul yàlla ak yenent bi ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootu suñu borom gi ñu rop ndax nee na dimbale nee na jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi soo demee këram moog Baye Fall yi dëkk këram waxtu wu ne moog Baye Fall yi am jox Baye Fall yi xeebul kenn mu ci jumaa yi mu ci social yi mu ci jàkk yi ku génn àdduna bu nekk yàlla gi ku am mbégte mu ànd koog ku am daa neex maa ngi ko yow lii de lañ xam ci moom. xamuñ lenn lu dul loolu yàlla dégg soo ko joxoon toog këram tëju kenn du ko gis waaye soxna si de deful loolu otoom lay taal def ci isaas def ci dëkk yi fu ne ci àdduna te dafa dem ngir lan ngir soxlay doomu adama yi ba tey lii firnde waat la ci kon loolu ko yàlla bindee soxna Fallou Fall ku baax la ku rafet xol la ku ma a dimbali la ku am yitte la ku am social la ku mën a taxawu doomu adama yàlla nag moo ko dégg ci déggaaneem li ko yàlla déggee mooy yàlla may na ko xam boo xam ne lu la wax du dëgg yàlla yi may na ko xam-xam boo xam ne képp ku moom yoo bëggee faru li nga faru bu la bëggee faj daa faj mu nga wér loolu yaa dogal ci moom. léegi nag àdduna ñaar ko fi ne yàlla daf lay may ay may nga nan soxla ñu ne day wax la ko ñaareel moom de suñu borom li yàlla may moom mu sant bu baax képp koo xam ne suñu borom may na lii tamit. la yàlla may nangu na ba tey lii bokk na ci xeebulul kenn ak mayam moo tax sax may ji yàlla may la mu bàyyi lépp ànd ak délégation yëkkati abula kon bii xeeb na ko lool waaye ñu ne jox na la ko te diggante ak moom moo nekk lu xeebu lool ci moom waaye fas na yéene insha allah rabbu naa daal lii am tàmbali la waaye fas na yéene loo nekk dana ci nekk ànd ko ak yow jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulahi taala ndax sikar sa kat fekkan nga ko ko ngeen bokk te nekk. waxtu wu nekk jëmm yi xëy na ñoo gisewut waaye yéen a ngi xel nee bu baax a baax a baax nee moom nag muy ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Ablaye Fall ak Cheikh Ibrahima Yacine sunu borom dolli la kattan. dolli lay xéewal akuk yàgg fi ba nga li nga yéenal lépp ci lu baax ni nga ko bëgg nga amee ko ni ne mu ngi sant bu baax a baax a baax datay bee xat waaye bu yaatu woon ne kon kàddu yi dina fi ëpp ne jëf gis na lépp te yow yaa ngi ci biir xolam ne te dara du ko dindi te kanam rek la jëm ne nañ ko jéggal nee daf doon tànnal soxna Nafi Fallu Fall ak cantu boppam waaye cant bi ak waxtaan wi sën Fallu ko yor kon nu delloo ko ko jërë ngeen jëf. yàlla sunu borom fay ko payam gure ji xanaa Serigne Touba du seetaan. lenn lu jóg di dund jóg juddoo si yoon wi di ko yàq wala mu di ko xajamal wala mu di si indi baat boo xam ne ba ilaa yow mi diin dañ koy jamee waa kër Sëriñ Tuubaa kon xam nañ ni li fi Cheikh Fall indi rek kay dëgg kon li Serigne Fall lu wax léegi ne Cheikh Fall rek kay dëgg nañ xam ne Cheikh Fall rek kay dëgg te képp ku ngeen si gisul yàgg-yàgg dana leen ci fekk si ànd koog yéen ndax li ngeen nekk mooy dëgg kon nag nañu gën a góorgóorlu ñun taalibe yi lenn rek lan ñuy nawee mooy ak woyef mooy jub mooy nangoo liggéey mooy rafetal jikko yu rafet yooyu moom dong la ñuy nawee ab taalibe waxtu bu nu demee ba seet sunu bopp gis ni am na yeneen yu nu gane yu bokk la yu rafet yooyu nañ daal di def suñu yitte si saasi si tàggoog jikko yooyu te fexe jël yi nga xam ne mooy jikko yu rafet poosé ko si suñu bopp ndax loolu mooy njukkal li nu am li nu mën a am suñu digg ak Cheikh Fall njukkal li nu mën a amee sëñ Touba mooy nu doon melokaan woo xam ne waxtu wu nu jéggee ab tànk fu ko teg képp ku ko roy ba teg ko fa doo fa gis lenn lu lay gaañ loolee mooy melokaanu taalibe kenn nag képp koo xam ne kii yaa ngi tuddoo sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall yaa ngi tuddoo yoon wi da nga fexe ba góorlu si dénkaan yi nga xam ne moom la sëriñ bi dénkaane sax ñu ñaan yàlla sunu borom yàlla nañu fi teewaat nag ni déwén sëriñ bi jiitewaat liggéey bi ànd koog rakkam yéeg doomam yeeg taalibeem yi ñu àndaat liggéey bi taxawu ko ba mu soob ko rek barkeb sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal yàlla mën na ko ñu ngi la koy ñaanal sëñ Talla yaag sa rakk yi barkeb sëriñ Amdi Fall barkeb maam Cheikh Rafal barkeb maam Ibrahima Yacine ñu koy ñaan yàlla sama borom taxawu la yaag sa njaboot gi yëpp foo bëgg àggale liggéey bi yàlla na fa àgg barkeb sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafal wasalaamaaleykum waaye nekk na wax amin amin amin amin